rahmaani rahiim maaliki yawmi diin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa alaa aalihi al-aziim wal kaazimiina allah yuhibbul muhsinin yow asalaamaaleykum wa ngi nuyu mbooleem umma islamique bi di ci jiiteel suñu xarit Mawlaaya Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ibrahima Niass di nuyu imaamul akbar imaam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé di nuyu Cheikh Mouhamadul Maali Cissé porte-parole pays bi di nuyu mbooleem waa Medina Baye di nuyu xadara Tidiane bi nekk Sénégal yëpp. Tijaan Tiwaawan muy taal taal mais vraiment famille Cheikh Tijaan bi nga xam ne ñu ngi nekk fii di ci jiital Chérif Hamza Tijaani di nuyu Mutalib di nuyu Cheikh Mbacke xalifa général des Mourides di nuyu porte-parole am Bass Abdou di nuyu mboolem jullit yi nekk senegal di leen jéggalu ci weeru koor bi di ñaan yàlla yàlla nangu ñu si jaamu yàlla yi ñu ñëw tey di leerlu ci benn poñ bu nga xam ne moo fi am jël def ko xas Cheikhu Tidiane xas mboolem représentant Cheikhu Tidiane yi nekk fii biir Sénégal ñu tudd Gana Messere vidéo bi di circuler ba yegsi ci ñun ajjuma bi paase ba mu yegsi ci ñun ajjuma bi paase ñuy waaj a jooy sax nit wax ko ñeme ko wax Cheikh Tidiane ba pare ñeme ko xas mboolem xulafaawu Cheikh Tidiane hmm. ñu nekk fii Sénégal di Hadj Malick Hadj Abdoulaye Niass famille Cheikh Oumar Foutiyou famille Daaka bi ñi fi nekk ñëpp di ay Tidiane wax ma ñoom mun na taar yooyu waaye nga laal seen seen pas seen pas-pas muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi nga xam ne ñun ñëpp moom moo ñu takkee fii Chawtiyan ngay roy te Chawtiyan mooy xale bi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi bañ déggee wax ji yàlla xam na ne bés lu ñu xadale yëpp xamuñ ci dara suñu xaalis suñu soppee njaay bàyyi maamu si lu nañu waat vidéo bu fekk nekk affaire bi gën maa méttiwaat mën ma dem naa ci direct sax ñu dem ba quelques sa après ñun bañ xadaraa ba pare audio bii ñuy wax audio bii àjjuma la woon xutba hmm. bii ñu wax ni ajjuma la woon ginnaaw bañ xadara ajjuma pare ci la audio bii ma def ko boobu maa ngi mer moo tax ma tàmbalee ba kaasi bii na xëy si wa afi ani naa yàlla mu ñi nga xam ne ñu ngi nëbb seeni mer ba pare ñu ngi baal nit ñi te yàlla bëgg ñu yëwénal moo tax ma ubbee aaya boobu parce que tey dee ndaare la tey damaa dow ndaare parce que damaa mer te mer moo indi loolu yëpp lu ko waral mooy dañoo tooñ sama sëriñ dañoo laal sama xol moo tax ñi may xas di ma saaga yëpp man baal naa leen parce que li ma yëg ba wax ñoom mënul la yëg ba di ma oo di ma saaga di ma xas li ñu wax Cheikhu Tidiane man waxuma ko Cheikh Amadou Bamba. Cheikh am Cheikh Mouhamad Gana Gana Messere li mu wax Cheikhu Tidiane wax ko ñoom Sidi Hadji wax ko ñoom Sidi Hadji li mu leen wax murit bu ko déggoon. tey bu fekkoon benn tijaan moo wax loolu Cheikh Amadou Bamba wala moo wax ko benn sëñ benn doomu sëñ Tuubaa kon tey dëkk bi leen la ñu wax ma yaakaaroon ne li waroon mooy murid ji na ko yow Gana li nga def waroo ko def mm-hmm. te alhamdulilah def na ko parce que Ousmane Baye maamu dafa ma wàcc guddi gi mu ne ma kat maam Cheikh Mbacke bu AIS bi nga xam ne ñu nag moom ñoo bokk cadre unité de l'islam maa ngi nuyuwaat di jégalu sama sëriñ sama xarit suñu président cadre unitaire muy Cheikh Ahmed si al amin di ko njëkkalu di nuyuwaale waa Tiwaawan yëpp ba ma ko waxee mu ne ma kat maam Cheikh Mbacke moo ma ñaan mu ne ma suma vidéo moo doon def ci Gana Messere ndax duma ko supprimer parce que moom dina ci dox ba bu suma carte générale bu jotee Gana Messere dina tuub ma ne Ousmane alhamdulilah rabbil alamin ma ne ko dama nga supprimer sa vidéo bokk naa ci li mu diisoo vidéo kon man su ma sa yoon coow li sax kenn du ko yëg parce que foofu lay yem parce que sama kàddu ga ma ko waxee sama kër ginnaaw xasee de jumaa bu ma Ousmane waxee ne supprimé na ndax maam Cheikh Mbacke ko ñaan man ca laa yemale wax ci guddi gi toog Ousmane Baye Mamoun defaat beneen vidéo wone ne maam Cheikh Mbacke bu AES moo ko ñaan ñu koy gërëm bu baax maam Cheikh Mbacke ci tànk ko rafet yi parce que su deful woon duñ ko wax mais dafa def moo tax ñu koy wax te ba mu defee itam samedi ba gànna message ñëwee tuub na. suba teel ba Ousmane yónnee vidéo wan ma ne Gana Messere tuub na dama ne ko gaaw nañ ko gaaw partagé pour nit ñi gis ko parce que boobu maa ngi bañ rek nit ñi yëg ne Gana wax na dara ci Cheikh Tidiane wala loolu rek a doon tax mais audio bii ñu tax partagé bàyyi ba carte générale bi euh, Gana Messere tuub tuubam gi te ñun ñëpp ñu nangul ko tuubam gi parce que ñun ñëpp dañuy juum man mii li ma def damaa juum mer moo taxoon ma def ko te yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit waxoon na ko mu ne diggal ma yoon bi nekk sallallahu alayhi wa laa tax dëpp mu ne ko yoon bi diggalal ma ñaari yoon mu ne ko laa tax dëpp mu ne ko ñetti yoon mu ne ko laa tax dëpp bu ko laajee rek mu ne ko yoon bi ne ko bul di mer bul mer bul mer bul mer man nag mer moo taxoon ajji mu wax loolu audio bi du samedi du dimanche audio bi ajji ay maamum effacé vidéo man ca laa ca pare te wallahi azim maa ngi ci koor benn yaa mun dëkkee ma wér du ma ko gànna mesara parce que ba ma xamee ne affaire bi am na man ca laa baax ma xam ne mérité wul ñun ñu toog di ko xeex parce que tuub na comme tuub na rek wa man taaba taaba loo alayhi ku tuub man na maa ngi jégalu mbooleem murit yi waaye tey bu ngeen duggee ci site YouTube yi boo dugg tey soo gisee nit wax ci sëñ Tuubaa di nga dégg mbooleem murit yi jóg contre ko contre ko tontu ko te kii ñun lañ xas ñun Thiel Mouride moo jóg xas Cheikh Tidiane xas mboolem xolofaawu Cheikh Tidiane yi nekk fii Sénégal ñun duñu wax ne li ñu def baax na ñun dañu wax ne li ñu def noon la dañoo tuub dañoo juum ñu ngi jéggalu parce que dañoo meroon moo waroon ñu def loolu mais ñu ngi jéggalu Gana Messere di ko ñaana yàlla gudd fan man mii ngay wax ci waa Medina Baye man de bokk naa ci ñi la bëgg ñi la naw vidéo bi nga defoon di jàngale sa parcours ba nga ciy jooy wallahi asi ma ma te yu bëri sa gànn message sa kii yu bëri dama laa bëgg yow Abdoulaye Diop Misri parce que da ngeen di permettre nit ñi ñu bëri ñu gën a xam histoire bare Cheikh Tidiane kii Cheikh Amadou Bamba ñun nag waxuñu ak Cheikh Amadou Bamba dara waxuñu ak benn doomu Sëñ Touba dara bëgg nag Sénégal bu la yaamuru bi àtt yàlla dafa bëgg ñuy àtte dëgg parce que yaa àtt lu xuwallah yàlla mooy ku mooy ku dëgg te alayhi salaam bi ahkaamil xaakim mi ndax ndey yàlla du dàqul àtte képp kuy àtte ku jóg saaga Cheikhu Tidiane saaga mboolem famille Cheikhu Tidiane yi nekk Sénégal ak man mi jóg man kese dal ci moom suñ doon àtte kan moo gën a rëy doon yaakaar naa moom li mu ma baalu baalu man ko baalee war na dem Tiwaawan baalu ji dem Medina Baye baalu ji dem taal taal baalu dem famille Cheikhu Tidiane yi nekk diggante dem baalu ji waaye man de yàlla xam na ne wallaay gànna ba nga tuubee laa la baal te maa ngi ñaan man maa ngi ñaan nga baal ma maa ngi ñaan mbooleem waa Touba ñu baal ma maa ngi ñaan mboolem Tijaani ñu baal Gana. wax leen yéen ñëpp ñun liñ ci bëggoon wax duñ ko guddal mooy ñi dugaloon analyse bi may def ci affaire mooy ñi dugaloon vidéo bu Gana di def loolu lañ bëggoon mooy féewale Gana ak mu Tijaani parce que Gana bu muy def conférence amul benn Tijaan boo ko fekkee. ko tey wala génn ko démb wala génn ko barki dem ñoom ñaar ñëpp a àtte parce que mooy jaxase. man ba ma defee àjjuma damay def loolu wax ko ba Ousmane am garanti ci maam Cheikh Mbacke te maam Cheikh Mbacke dëggal garanti boobu ñun su lañ ci pare man fàtte woon naa sax lu jëm ci audio bi te Ousmane Baye Mamoun su ma seetee si la moom moom yëgul sax ne ojo boobu am na. wallaahi audio boobu xadara lañ toogoon def ko mu jeex pare nañ ci pare nañ ci. su fekkee bedd naa benn yaa moom doxee mu jëm ci gànn meesara yàlla na këpp sama kaw donc buñ bëgg la mais dafa tooñ comme dafa tooñ nag war na jéggalu mbooleem famille religieuse war na jégalu mbooleem tijaan yi te mooy suñ mbokk murid yi nga xam ne ñun ma bokk benn Sëriñ Tuubaa lu mu wax Tuubaa li abdin muridin saadiqin loo bi xidmatin aw bi xubbin aw bi addiyatin Sëriñ Tuubaa mu ne texe ñeen la bi nga xam ne day joxe addiye dafa bëgg sëriñam te daf koy xidmaat xubbin nag xubbin xubb taalibe dafay bëgg sëriñam ñun Cheikh Tidiane dam ñu wax mu ne képp ku ma ki nga xam ne tey moom gën a bëgg Cheikh Tidiane mooy suñ may li ñuy laaj addiye mooy ëppale li mu joxe ñaareelu buñ ma tuddee mu xeexal ma Cheikh Tidiane suñu sëriñ loolu la ñu wax suñ ma tuddee ñu xeexal buñ ma saagaan da ngeen ma fayul te ñun yegguñ foofu yëpp parce que ñun dañ jéggale dañ baale ñun ay jullit lañ ay jaamu yàlla nañ dañuy jég dañuy ja dañuy juum bëgg nañ yàlla dañu baal waxuma laa ne ñun si ay borom maa ngi waxaat encore une fois ne bu Gana Messere waxul woon lam wax peut-être lii am du am muy benn Gana Messere de tuub na nangul nañ ko tuubam man tam maa ngi ñaan suma tuub gi ñun ñëpp yéen ñëpp nga nangul ma suma tuub suma sëriñ la xas xas sama sëriñu sëriñ laal suma pas tontu te nag comme jullit ñi li nga xam ne audio dégg mu naqade la maa la ciy jéggalu mais damay waxaat rek ne képp ku dégg audio vidéo bu Gana Messere def wax dëgg yàlla di nga am lu la metti te képp ku dégg sama audio boobu te xam ma man Abdou Ndao di nga xam ne ba may wax loolu dama ku dégg sama baat di nga xam ne mer ci baateeru mer laa ko defee te nag mer la colère et mauvaise conseillère lañ mer du la diggal li nga xam ne da lay moo tax maa ngi jéggalu ñëpp kenn gënu maa bëgg tubaa kenn gënu maa bëgg jullit nii man jullit yi rek laa bëgg suma dund gi yëpp dama ko passé pour yar ay nit ñu mokkal seen diine xam yoon bu ñuy jaar ba àgg ci yàlla ci loolu la ñu Cheikh Assane yar ñu ñëw ñuy tooñ waxuma la ñuy tooñ toolar bi waaye bii nag man maa am manquement gis lu ma metti ñu wax ko Cheikhu Tijaan mosuma mm-hmm. xalaat suñu dund ma dégg lu mel noonu ñu xas Cheikhu Tijaan xas mboolem ku la faawu Cheikhu Tijaan ñu nekk fii Sénégal ba pare di dox comme ça jégaluwul nit ñi man loolu moo metti woon moo tax maa ngi jégaluwaat encore une fois di indiwaat kàddu leeral yi pour ñi nga xam ne dañu xamul lu xew ñu xam ne lii moo xew benn bi Gana Messere moo génn vidéo xas Cheikh Tijaan man xasuma ma lu Bamba xasuma benn doomu sëñ Tuubaa xasuma kenn Tuubaa man moom ma xas sama sëriñ man moom moo moom laa doon tontu ñaareel bi audio bi ñuy wane quartier général man la damay wax def quartier général moo tax ma teg ko du dëgg audio bi àjjuma la woon te ba mu tuubee te maam maam Cheikh Mbàkke joxe kàddoom te def na ko ni mu ko waxee woon man ci laa arrêté lii kon ñi génne woon vidéo bee ak ñi génne bi bii yaakaar naa ñoom ñoo am intention yu bon pour jaxase yi waaye ñun jàmm rek lañ bëgg in uridu ila islaahan mastadaxtum fii wa ma tawfiqi illa billahi wa axiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi jégalu ñëpp encore une fois asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatu